نعمة بكياب وبل léegi sëñ Aziz ne ko ko proposé mais xam naa ne buñ ma bettoon ni ma ci laïcité la ñu bëgg waxtaan naka nga bëgg a formuler li ma koy formuler du sori ni nga xamee ni noonu la ñu proposé ci beneen wàll mun naa ne dëppoo na lool ak ni nga xamee ni noonu laa euh, définiré problématique bu mel nii mooy confrontation ou renégociation l'impératif d'un nouveau pacte national dans les relations État, religion et société au Sénégal. ndax li ma jàpp mooy toll nañ ci ben taxaway bo xamni ni bi nga xamni ni mom lañu la laaj na toog waxtaane ko amaat ci. Euh, jëmuwaay bu bees euh, dama jàppale bu fekkee xaj na defuñu ko li nga xamee ni moom lay wax confrontation mën na ko jur kon daanaka moo ni nga xame ni noonu la ko sëñ Aziz définir benn la xam naa ne li nga xamee ni mooy référendum constitutionnel bi nga xamee ni moom la ñu def ci mois de mars euh, ak li nga xamee ni moom la président de la république Macky Sall njëkkoon a proposé jëmale ko ci intangibilité du concept de laïcité bokk na ci li tax débat bi judduwaat suqalikuwaat ci lu jëm ci mbirum laïcité kon ñun ñu jàpp ne euh, au ñu ñuy weesu référendum bi rek daal suul boobu te mu ëmb ay lëndëm lëndëm ëmb ay désaccord euh, warees na ko mën a indi waxtaane ko ndax li ñu jàpp mooy xaj na bokk na ci ligne de fracture yi nga xamee ni ñoo gën a fës Sénégal maanaam loo xamee ni dafa xar Sénégal ñaar wala boog xol yi wala ak xel yi dëppoo ci dinaa dellu si bu baax ci loolu euh, li ma jàpp mooy li nga xamee ni moom lañu tuddee laïcité du loo xamee ni dafa ànd moom kese dafa bari lu mu àndal te li nga xame ni moo indi xar-xar bi may wax xaj na mbirum république ci la bokk suñ ko yaatalee mbirum démocratie ci la bokk ah mbirum droit de l'homme ci la bokk ak yeneen question yu mel noonu ak yu bokk ak moom ndey nga xam ni foo ko yëngalee ci réew mi mu indi ay werante wala mu indi ay xol yu jóg wala mu indi leneen lu ko gën a garaaw ma jàppit ne loolu bokk na ci li ko indi ah, li nga xamee ni mooy baat yooyu ni ko li ëpp ci réew mi nga xamee ni jànguñu euh, tubaab jànguñu français te xam naa ni bariwul ñu jàngul tubaab te mu am ay bërëb yu ñu leen di expliquer ak di leen euh, càmbaral baat yooyu lan la ëmb lan mooy seen cosaan ak lan la ñuy wut ci réew mi di Sénégal kon bu ñuy dellusee ci laïcité euh, ñu bari gisee nañ ko li may tuddee corps étranger maanaam loo xamee ni dafa ñëw fekk soow daal di ciy ñuul euh, jóge ci historiographie yu yu yeneen yu wuuteeg suñu réew xaj yenn saa yu sori xaj na bi ñuy ñëwit euh, ànd nañu ak contexte boo xamee ni moom mooy contexte colonisation nga xamee ni jamono boobu lu ci ñëw xaj na ni ko xamee ni noonu la ko nit ñi di waa Sénégal di recevoir yi xaj na dina doon lu particulier te ku nekk xam na ni colonisation dafa am jeexital ci mbirum économique am jeexital ci mbirum politique am jeexital idéologique am jeexital ci mbirum njaal am jeexital ci mbirum communication loolu yëpp ku ne gis ne ne xaj na lii ñuy tuddee globalisation tey jii moom mooy mooy mooy benn la ci pàcc yi nga xamee ni moom mooy dëggal colonisation boobu nga xam ne lu fi yàgg la daanaka mun nañu wax ne ba fii ba tubaab yëkkatee ay moyen di di dem fu ne ci àdduna bi di jënd ay nja ay euh, esclave ba ci colonisation ba ci lii ñu lii nga xamante ni moom la ñuy dund tey loolu yëpp bokk na ci même mouvement benn même trajectoire li nga xamee ni seetlu naa ko it mooy euh, thème bi doon na thème boo xam xamee ni liñ koy waxtaane ci réew mi néew na surtout waxtaan boo xamee ni dañ koy waxtaan ngir xalaat ci suba li nga xamee ni moom mooy posé wu comme problématique dans un premier temps mooy ndax système de gouvernance yi nga xamee ni moom la africain yi di doxale seen réew tey ndax mën nañoo ànd ak l'islam ndax lëkkaloo bi nga xamee ni moom la système de gouvernance, système de gouvernance yooyu ak système politique yi di lëkkaloo ak diine ji ndax loolu am na risque wala déet ndax valeur yi nga xam ne moom la këru moom la diine ji di indi ci espace public bi ci vivre ensemble bi est-ce que loolu mën na am jeexital jëm ci mbirum gën koo jubal gën koo baaxal gën fa yokk éthique gën fa yokk moral ku ne xam na Sénégal ne euh, këru diine yi euh, bokk nañ surtout su may jël exemple confrérie soufi yi ci ñi nga xamee ni ñoo sos réew mi euh, sama xarit Abdou Aziz Kébé day wax ne ñoom ñooy enfanté réew mi maanaam ñoo ñoo jur réew mi tey jii nii ñi nga xamee ni noonu la tëddee

amna na doole amna na solo question bi tamit li nga xamee ni yëkkati na ko tax mu gën a nekk lu lu am solo waxtaane bokk na ci euh, li xew ci àdduna bi maanaam idéologie yu bari yi tas ci àdduna bi jaare ci télévision yi jaare ci internet jaare ci yeneen euh, voix nga xam ni fu nit ne idéologie yooyu dinañ la fa fekk boo bëggee dinga jot boo bëggul di nga jot soo bëggee say doom dina jot boo bëggul say doom dinañ jot idéologie yooyu dem tey ba xaj na indi yenn extrémisme yi bay indi ay euh, guerre yu bari yoo xamee ni non seulement diggante diine l'islam ak yeneen diine mais surtout ci biir diine l'islam mu doon tamit contexte boo xamee ni day questionné day laaj ñu càmbar euh, suñu réew mu mel ni Sénégal naka lay taxawee ci contexte bu mel noonu ci problématique bu mel ni laïcité damay laaj ci ci problématique bi nga xamee ni moom lañu mom lañu teureul manam muy terme de référence yi ndax laïcité au Sénégal la wara wax wala laïcité sénégalaise euh may sant sëñ Aziz ndax daanaka luñu inspiré wu la ci lu mu bind ci xidma ou la philosophie politique Cheikh Amadou Bamba muy laaj ndax république du Sénégal lañu am wala république sénégalaise xaj na bu jëlee jëlaatee parole dina ci dina ci dellu si waaye pour man questionnement bu am solo la li muy poser fondamentalement mooy ndax li ñuy wax république ndax li ñuy wax laïcité ñoo ko moom ban euh, ban taarix la am ci réew bi euh, loolu bokk na ci li nga xamee ni dinañ ko fi yëkkati. Euh, li ma bëggoon a euh, njëkk njëkki euh, xuus ci tuuti mooy lu jëm ci mbirum théorie ak concept maanaam jàngal tuuti fan la baat bi jóge muy laïcité dañoo wax ni mooy le principe de séparation entre l'État dans l'État de la société civile et de la société religieuse, et d'impartialité ou de neutralité de l'État à l'égard des confessions religieuses. donc muy ne ñun ñu bëgg wax laïcité mooy euh, maanaam baat la boo xamee ni li muy wund mooy état boo xamee ni dafa tàqalikoo ak mu am li ñuy wax impartialité ak neutralité euh, mu doon baat boo xam ni euh, xaj na bu fekkoon mën nañ koo firi ci wolof ah, mën nañ koo tuddee tëdde njaaxaanaay wala tudd tëdde ndey ji seex ma jàpp ne bu fekkoon euh, lu ñu wax la ci wolof ñu am une bi ñu bind ci wolof wax ko ci wolof poser problème benn sénégalais wala du choquer benn sénégalais loolu dinaa ci dellu si euh, mu doon pas boo ni bu yàgg la te ba mu dooree ba léegi euh, mën nañu wax ne signification yu bari histoire depuis l'antiquité Euh, waaye fu mu ci ne li niñ ko fa dëggale mooy baat boo xam ni daal dafay wone ni li ñuy wax nguur même su fekkee baat bi satisfaire ñu euh, dafa war a tàqalikoo ak diine waruñoo jote dara euh, kon ku mel ni Jean Bobero, qui définit définition processus de sécularisation et laïcisation la sécularisation implique une relative et progressive perte de pertinence sociale des univers religieux par rapport à la culture commune donc li laïcité pour que laïcité laïcité diine dafay dellu ginnaaw bàyyi lu jëm ci mbiru nguur ak ci mbiru politique jiitu kon ñu mën a wax ne euh, baat bi fa mu jógee muy cosaanam ci ay bindkat la yu mel ni Marc Aurèle ak euh, Locke nga xamee ni anglais la ba ci ñoom Diderot ak Voltaire nga xamee ni jàng nañ leen

dañoo war a tàqale diine ak doxalinu réew euh, ba ci euh, Jésus sax mi nga xamee ni ci jamonoom baat bi nga xamee ni moom la ñuy wax rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce ñu bari interprété nañ ko comme euh, ne dañoo war a tëral mbiru diine teg ko fee tëral mbiru doxal dëkk bi teg ko fële kon yooyu mën xaj na mënoon nañ cee yàgg euh, mais li ci am solo rek lu ñu war a jàpp mooy euh, baat la bu yaatu baat la bu yaatu ay signification yaatu aussi taarix ak ñu ci bind ak ñu ci wax mu doon baat boo xam ni kon law na ci àdduna bi doon na ci àdduna bi tamit problème doon na ci àdduna bi problème boo xam ni fépp ci réewu àdduna bi dañ ko dañ ko dañ koy questionner di ko jàngat di xool ndax jubu na réew wala jubuwul seeni réew kon mooy jàpp ne li nga xamee ni moom la ñuy moom la ci waa Sénégal di waxtaan euh, doonul loo xamee ni lu singulier la wala lu particulier la loo xamee ni la fépp ci àdduna bi lañ koy lañ koy laaj tey waaye est-ce que principe universel la boo xamee ni comme ni ko sénégalais yu bari jàpp jàppee notamment intellectuels sénégalais yi est-ce que principe universel la loolu it bëggoon naa ci us wone par exemple ne dëkk bu mel ni Albanie ah, sorry là. Oui, li ñu évolution Madame, qui c'est l'histoire? ay temps jàpp nañ nous dañoo à boire, dîner, à ak dîner à ak politique ay ay temps ci l'histoire, histoire ñu jàpp ne dañ ko séparer notamment dans la bi nga xam ni communiste il y nga fu l'Allemagne. ni

yu leen di permettre ñoom ci seen bopp ñu ñuy lever ay impôts di ko jariñoo mu doon aussi landeur par landeur ci Allemagne loo xamee ni landeur bu ci nekk da seet li nga xamee ni moo gën a dëppoo ak sa cosaan dëppoo dëppoo ak sa doxal euh, fu mel ni Australie euh, su ma ko jëlee mun naa ci wax ne Euh, ñoom seen séparation ak mbirum religion lu fa fés la euh, te waaye du ñu du ñu maanaam fésal benn benn euh, fésal jëm ci jëm ci contre religion fu mel ni Autriche comme ni mako ko won ci ci ci Allemagne sànq ñom mom amul làq-làqal ñom dañu wax ni église catholique mom moy seen religion moy religion nguur ci ba tax na communauté religieuse yi dañ leen di may dañuy état bi ci boppam day lever ay impôt, di ko jox communauté religieuse fu mel ni Belgique relation bu complexe la am ndax ñoom tamit mbiru laïcité moom la ñu wax ci seen constitution waaye dañoo wax quand même ne catholicisme moom mooy ah religion bi nga xam ne moo fa dominé ah, ba ci enseignement officiel bi nit ñi nga xamee ni ñom ñoo fay dugal seeni doom mën nañoo choisir ay cours confessionnels ci biir programme yi te ku xolé seeni parti parti la plupart des partis euh, dañuy sont seen partis parti chrétien mu des parti de gauche mu partis parti de droite mu partis parti du centre Si xolé dëkk bu melni Brésil ku nekk xamna ni pays pays laïque mais aussi pays bu euh, église évangélique yi bari doole lool euh, bokk danaka lu ñuy liggéey parti politique kon ñoom it fu ñu toll dañuy jéem a fexe lëkkaloo boobu nekk lëkkaloo bu rafet euh, mun naa multiplier exemple yi fu mel ni États-Unis ku nekk xam na ne fa la démocratie sax fa la xaj na même laïcité euh, njëkk njëkk appliqué ci monde moderne fii ñu toll nii euh, depuis seen révolution ba ñu def waaye ku nekk xam na ne.

yoon la ñu ñu particulariser France ndax France du dëkk bu nekk pour ñun dëkk la boo xam ne moo ñu coloniser ba ñu coloniser ba mu ñu joxee indépendance it ñi nga xam ne ni ñoom ñoo ñoom la ñuy wax tey ji xaj na consultant wala appui technique bu France ñoo ñu bindal suñu ay constitution ci lu bari kon daanaka bu togué tay tey tey jii di waxtaan di mbirum laïcité mënuñu ko ñàkk lëkkale ak la xew France ak taarix ba baat boobu am France ak la France donc fa mu jógee d'abord une déclaration des droits de l'homme et des citoyens de 1789 euh, ba ci euh, constitution de 1958 beneen euh, moment fort important par rapport à euh, laïcité aussi euh, 1905 ak loi bi nga xamee ni séparé église et état mais comme ni mako ko sank lo xamé ni la lu évoluer la ci sen histoire histoire euh, seen ci sen taarix amna ci ay moment yo xamé ni église bi ak nguur gi dañoo lekkelo amna ci ay yo xamé ni dañoo séparé amna ay yo xamé ni dañoo bañante comme xew na fa te ku ko dégg man ko djégélé ak li nga xamé ni xew France laïcité bu sévère wala laïcité même bu intégriste man nañu jappalé tamit ci seen trajectoire xaj na suba dinañ dinañ ci jóg donc ñom ci sen ba ci sen système éducatif amul fuñu mayé euh ci ci système public bi ci programme yi nga xamé ni mom lañu gëreul fo xamé ni dañ fay jàngi di yoon da ko dàq kon ñoom xaj sen application laïcité mo gën mo moo gën sévère ba jamono ji ñu tollu baat bi nek na baat bo xamé ni ñi dañ koy jappé euh ah, baat bo xamni dañ ko wara a dañ ko wara interroger xool ndax France laïcité bi nga xamé ni nii moom lay doxé ndax mom la wara continuer doxé wala ñeneen ñeneen ñi tamit jàpp ne laïcité bi dañ ko wara renforcer ndax menace yo xamné dañ ko japp né diine l'islam da leen ko menacer lool tamit euh ñu ci mëna japp benen aspect bi nga xamné ni bëggoon naa ko souligner par rapport ak euh, laïcité France moy li mu nangu ay exception lool tamit dina xawa jaaxal ñu bari mais laïcité France limi muy tar tar tar euh, am na ay région France yo xamné ni laïcité dañ ko faa noyam wala ñu euh, choisir yeneen modèle mu doon ay exception ci biir France mun ci joxe Alsace modèle euh, Moselle euh, mun ci joxe fu mel ni Mayotte nga xamee ni ay jullit lañ ñu reconnaître seeni culte reconnaître ay tribunaux yoo xamee ni charia lay doxe te lépp nekk ci biir France fu mel ni Guyane euh, c'est culte c'est une ordonnance où 1827 pour reconnaître les cultes catholiques. culte catholique culte de de France Saint-Pierre et Miquelon Nouvelle-Calédonie m'ont ah, autorisé une mission missions religieuses constituer un conseil d'administration euh, afin de donner une situation juridique à la gestion des biens utiles à l'exercice des cultes nous naa multiplier exemple yi euh, leneen li nga xamee ni bëgg ci mooy ni la Afrique yi nga xamee France moo leen colonisé woon ni nga xamee ni noonu la France ci mbirum laïcité suñu ko seetloo mun nañu wax

Nous avons beaucoup de gens fédération de l'Afrique occidentale française Nous la laïcité cette constitution Nous avons formulé Cameroun le Cameroun place la République sous l'égide de la laïcité mais le peuple camerounais se place sous la protection de Dieu c'est une constitution la Constitution constitution Madagascar nous amul de daf euh, affirmant sa croyance en Dieu

mënoon naa multiplier exemple exemples, ci Turquie ndax ku état dafa taxawale euh, imam yi ay fonctionnaires lañ nguur ministre des affaires religieuses fu Indonésie ñoom euh, laïcité euh, ci constitution waaye te bind nañ tamit ne croyance en un Dieu unique bokk na ci li nga xamee ni moo leen di doxal kon bu ñu amee tey di nii ñaari camp ca foofa ci ci France euh, am fii ci Sénégal tamit ñaari camp pour man lu normal la ndax euh, ku mel ni Vincent Payon dem na ba ne la laïcité est une religion celle de la République

ci ci continent yépp ñu tudd baat bi ak ñu ñàkk ko tudd maanaam naka la nguur di demee ak diine pour doxal réew am na ñu ko tudd nag am na ñu ko tuddul fii ci Sénégal débat la boo xamee ni bu fi yàgg la déjà 1960 bi Senghor di inauguré fii jumaay Touba lam ca waxoon mooy la laïcité pour nous n'est ni l'athéisme, ni la propagande anti-religieuse. La religion est un aspect essentiel de notre culture. Elle représente l'effort le plus noble pour lier l'homme à l'univers dans un double effort de socialisation et de totalisation. Nous l'air, nous comme jamono jii ñu toll ba laïcité nekk lu ñor ñëpp ba tax ci jàngat bu ñu bari def li nga xam ne ni moo xew ci référendum bi ñu génn ah, ñu jàpp ñu bari jàpp ne fii Touba xaj na li jëm ci mbirum vote non bi bari fi doole bokk na ci li ñu tudd benn moment intangibilité wu laïcité ci constitution bi moo ko indi néew ma dëgg la néew du dëgg mais bàyyi na ñu ko jàngate noonu kon euh, bi nga xamé ni bind nañ ko ci constitution bi ci ci euh, proposition de changement yi bari nañu laaj boole ko ak li nga xamé ni mom lañuy waxé nouveau droit lan la wul lan la ëmb ah est-ce que du jëmul ci mbirum euh, indi fi mbirum góor jigéen affaire homosexuelle

dañoo mos a ànd di di dox ba ñu bare jàm jàngal jàpp ne loolu bokk na ci li tax réew mi nekk réew mu dal mu bari ay chercheur ay gëstukat yoo xamee ni ci seen gëstu loolu la wone daanaka ñu bari ci gëstukat yi nga xamee ni gëstu nañ fi diggante indépendance légui même avant euh, ñi ci bari reprendre nañu ki ñuy wax pour Marty nga xamee ni teewoon na fi ci territoire Sénégal ci fin euh, dix-neuvième siècle début vingtième siècle jaar ci réew mi yëpp def fi ay études génne ay téere ni nga xamee ni noonu la euh, euh, constitution en France euh, am na lu mu ci lu ci préparé la naturelle paresse du noir tant physique intellectuel s'accorde le mieux au monde avec le dogme du fatalisme et de l'abandon à la volonté supérieure donc pour moi, wóoroon na ko ne ñun dañuy leen di le noir se laisse toujours séduire par la nouveauté qui se présente sous la forme supérieure de la science ou de la religion il ne se lasse pas de lui faire bon et joyeux accueil muy doon wax ju ñaaw go joo xamee ni euh, bari na ci ñi nga xamé ni def nañu ay gëstu top ci mom euh amna luñ ci luñ ci ñu ci bari it euh, fésal ne dëgg-dëgg Sénégal bu mu nekkee réew mu taxaw nekkit réew mu dal diggante boobu nga xamee ni mooy diggante diine ak nguur euh, ñoo ko séq di ko doxal ku mel ni Chris O'Brien ku mel ni Christian Coulon mi bind na Marabout et le Prince

L'idée est de renouveler recherche par rapport à l'eau. Que les connaissances de l'intérieur et non pas des interprétations avec des visées idéologiques ou politiques euh, kon bu fekkee jàpp nañ Sénégal moo tax seen lëkkaloo tax na réew mi dal man boog dama jàpp ne xaj na diggante bi am na solo waaye tamit bari na muusante wala muusantu maanaam nguur gi jàpp ne dafa war a ñëw ci këru diine yi ah, ñaan leen ay baat ñu wax seeni taalibe ñu voteel ko surtout régime yi fi jaar ak ñi leen jiite xaj na sëriñ yi tamit jàpp ne lëkkaloo ak nguur am na ay intérêt intérêt yu bari jaar ci ay tool ay suuf jaar ci ay passeport jaar ci leneen mu nekk diggante jàppal ma jàpp jàppal ma jàpp boo xamee ni xaj na jeexi talam ci réew mi euh, ci lu jëm ci lu baax mënoon na fee weesu nii bu fekkoon jàppalante bi njariñu réew mi moo ko taxoon a jóg may wax ne xaj na lëkkaloo bi ñu lëkkaloo jurul jurul réellement développement jurul réellement développement donc kon am na luñ ci war a jubbanti wala boog luñ ci war a sax tëggaat mu doon diggante bu bees boo xamee ni ginnaaw buñ ci waxtaanee day doon loo xamee ni day jur njariñ ngir réew Euh. mais suñu suñu seetloo dellusi tuuti ci baatu laïcité mën nañu wax ne bu fekkee ci France lañ ko euh, copier bari na tey jii ci réew mi ay kuréel ak ay personnalité euh, ak ay catégorie yoo xamee ni jàpp nañ ne mënul ñàkk ci réew bi maanaam doon nañ ñoo xamee ni euh, daanaka sax am na ci ay intégristes ñoo xamee ni dañoo jàpp ne euh, ñoom ay intégristes wu laïcité lañ mën naa cee jàpp euh, yenn organisation droit de l'homme yi yenn fonctionnaires yi yenn universitaires yi yenn hommes politiques yi de notre côté Euh, am na ci ay kuréelu diine yoo xamee ni dañoo jàpp ne euh, ñoom euh, ñàkk ñàkk laïcité ci réew mi ñoom intégriste lañ ci maanaam laïcité dañ ko war a dindi ci réew mi sànni ba nekk ci ñoom it ay intégriste ñu jàpp ne baat yi nga xamee nii ñii ñi ngi koy sànni ñee ñii di ko sànni ñee xaj na mën na am mu jur loo xamee ni du njariñu réew mi euh, kon loolu bokk na ci li war a tax ñu toog kon toogaay bu mel ni wecc ci xalaat euh, toogaay yu mel nii nag mi ngi commencé di bari man ci gëstu bi ma ci def fan yi gis naa ne li ñuy wax assis national euh, def na ci jéego yu mag ma bëggoon rek euh, fàttali euh, ni ginnaaw suñu comme ni ma ko présenté nii même question bi ci bi ci mujj daaw waxtaanee nañ ko fii muy mbirum parité euh, li xew fan yi Dakar ndaw si ñu jàppoon te yóbbu ko tribunal ñenn ñi ne du fi am ñenn ñi dafay am yooyu yëpp wane na ne question yoo xamee ni la saa yu ñu ko génnee day indi werante indi jàmmaarloo

dañoo attiré l'attention euh, des assisards, euh, que le projet de refondation de la nation sénégalaise que nous voulons proposer à notre peuple sera mal parti si nous adoptons la laïcité comme disposition intangible de la Constitution. Je les cite hein. Ils disent qu'ils sont préoccupés, autant ou même plus que les rédacteurs du rapport, par la possible rupture de l'équilibre des relations entre les confessions et confréries religieuses, entre l'État et les confessions religieuses. Il semble que la nécessité de proclamer une république laïque au Sénégal n'a été nullement exprimée par les populations. Pourquoi donc, à l'arrivée, la laïcité s'impose par la volonté d'on sait qui comme une disposition intangible et prend ainsi une place d'honneur dans un rapport censé être le recueil des, des consensus de notre nation. Au contraire, c'est un renforcement raisonné des institutions religieuses dont le Sénégal a besoin pour promouvoir l'éthique et la responsabilité au niveau de ses citoyens croyants afin d'assainir à l'avenir les relations entre les pouvoirs politiques et religieux donc ñom li ñu fésal mooy position bi mo doon wax donc kuréelu diine yi jàpp nañ ne laïcité warul bok ci suñu constitution euh te bokul ak li nga xam ne ni moom la Sénégalais yi bëgg bi assise yi liggéeyee ba noppi li nga xam ni mom la assise yi proposé dafa jéem tontu loolu nga xamé ni mooy revendication wu jamaat Ibadur Rahman di aussi revendication yenn personnalité religieuse yu mel ni sëñ Mansour Sy jamil ak ñu démé donc assise nationale yi la laïcité de l'État au Sénégal signifie au plan constitutionnel que le pouvoir temporel doit s'abstenir d'intervenir dans le fonctionnement des institutions à vocation spirituelle qui à leur tour ne doivent pas exercer leur emprise sur les pouvoirs politiques, civils et administratifs. Les institutions de la République ne peuvent être caractérisés dans leur expression par une religion, une secte ou une confrérie. Les représentants des institutions sont tenus, dans l'exercice de leur fonction, de s'abstenir de marquer leur préférence ou leur rejet d'une religion, d'une secte ou d'une confrérie. La laïcité implique, nous le devoir de garantir la liberté de conscience et le droit d'exprimer ses convictions

ci réforme constitutionnelle bi nga xamee ni moom nga def mu bëggoon ci loolu ñu ñu taxaw ci maanaam ñu gis ne xaj na li nga xamee ni moo posé problème foofu mooy baatu laïcité bi mais contenu bi euh, daanaka ñu ci bari ànd nañ fii ci Sénégal ci contenu bi nga xamee ni moom lañ jox laïcité maanaam muy tëddee njaaxaanaay wala ndey ji seex nga xamee ni foo ko tudd ci réew mi bu ñu déggee wolof kenn du ko jàppe lu ñaaw ne nguur dafa war a tëddee njaaxaanaay par rapport ak këru diine yi nga xam ne ni ñoo fi nekk kon euh, si loolu xam naa ni temps bi bariwul euh, li ma bëgg a jeexale mooy d'abord jàpp mbirum éducation ma jàppale ne bokk na ci li indi ñaari camp yi maanaam le fekk Sénégal di doxee ñaari tànk yoo xamee ni daanaka seqoo faaloo la ci diggante këru jàngale yi nga xamee ni nguur gi moo leen di jàppale di définir seeni contenu di fay ñi leen jàngal ak euh, tànk bi nga xamee ni système d'éducation la boo xamee ni lu ñor ñi ëpp ci Sénégal lay wax te nguur gi du leen jàppale nguur gi du leen du du intervenir ci seeni ay contenu ba jamono yi xaj na ci la ay quelques évolutions commencé am ci côté boobu loolu bokku na ci liko ko indi ah, mais mbirum euh, mbirum mbirum laïcité jur aussi loolu ndax bu xaj bu fekkee bu fekkone tey jii nii suñu laïcité ñi nga xam ne ni noonu la wara a tëddee na ni euh, euh, ni nga xamé ni non la nguur gi tëggee système d'éducation bi dana wouté ak ni nga xamé ni nonu da taxawé mu bari nak ay courel tey jii nii yoo xamee ni dañu jog muy arabisants yi nga ni fim nek ni Sénégal ci wàññi ñu bari japp nañ ne weesu nañ cinq cent mille une activité bari na jëm ci économie une activité bari na jëm ci politique seen activité bari na ci jëm ci communication ñu jàpp ñoom bokk nañ ci ñiy continuer di pousse ngir nguur gi nangu tëral laïcité sénégalaise réellement boo xamee ni day lëkk day day dëppoo ak suñu cosaan cosaanu réew mi dëkkoo dëppoo ak li nga xamee ni moom mooy taarixu réew mi ak réalité réew mi euh, ñi nga xamee ni ñooy ñooy pouse jëm ci loolu tamit bokk na ci intellectuel yu yu confrères yi këru diine yi nga xamee ni at yi ñu weesu seen doole yokk na seen taxawaay yokk na ñu ci bari léegi lii gars yi daan bañ laïcité jàng moom lañu jàng dugg ci université yi ñu dugg euh, euh, mën a indi ay argument yoo xamee ne dina taxawal xalaatu dàq laïcité fii ci Sénégal donc ba mu tax euh, revendication bi donc revendication bu boo xamee ni ñu bari ci waa Sénégal seen xel mi ngi koy gën a nangu euh, kon képp ku bëgg a corriger ñaari camp yooyu division bi nga xamee ni moo am seen diggante ni ngi koy corriger ci éducation ngay jaar te waxtaan yi fi mujj damay wax sax depuis fanweeri at soo ko seetloo euh, assises nationales yi nga xamee ni moo fi amoon temps Abdou Diouf ak assise nationales yi nga xamee ni ñoo fi am tey ba daaw benn kàddu bi ñu wax mooy nañu dugal njàngaleem diine ci école yi nañu dugal njàngaleem diine ci école yi mu nekk ñoom ñaar ñëpp seen principale conclusion ñu gis ne ci loolu nguur gi xaj na mi ngi ciy def ay jéego waaye personnellement li ma jàpp mooy jéego yi jéego tactique la maanaam jéego pour fekk fexe ñenn ñi noppi maanaam revendication yi wàññeeku waaye du jé du jéego yoo xam ne ci stratégie réellement la tëdd ba tax na suñu tëralee xaj na yenn saa yenn jéego euh, ñi nga xame ni ñoo ko war a recevoir jéego yooyu jàppeeku lu baax dañ koy jàppee tactique bu nguur gi ay naxaate mu doon loo xamee ni dañ ci war a dellu si adopté ci une démarche plutôt stratégique wane carrément assumer carrément que ni réew mi dafa war a doxe ñaari tànk warul doxe xalaatu xaj na waa Ndakaaru wala xalaati ñu jànge école tubaab dafa war a doxe ay tànk yoo xamee ni dina lëkkale dina boole dina fexe réew mi ànd juboo ak yi nga xamee ni moom lañuy ñu jëm euh, fi fi mu toll nii nekk nañ ci jamono joo xamee ni euh, euh, jamono ju ànd ak lëkkaloo boobu la ndax réew mi dafa taxaw ci xalaat xalaataat koom-koomam tëggaat tëggu gu bees xalaat Euh, naka lay doxee ci mbirum politique ba l'institution institution constitution yu taxaw territoire yu def décentralisation euh, taxaw euh, programme Sénégal émergent des la bu war nañu mëna tay aussi éducation bu ni day ñi nga xam ne ni ñooy jàngat mbiru éducation bi yëpp gis nañ ni éducation bi li ko dal mooy cancer te ku nekk xam na fa cancer jëm kon doonul loo xame ni dañ ko war faj faju taf ci ab faj-fajal dañ ko war a teg fee tëggaat lu bees loo xamee ni day lëkkale ñaari jàng yi mu bañ a euh, doon ñaari jàng yoo xamee ni day tàqale réew mi ñaar loolu moom laa ci bëggoon a dolli may sant bu baax euh, ñi nga xamee ni ñoom ñoo définir thème bi jàpp ni réewum Sénégal xaj na am nañu chance bu mag euh, mu doon réewu diine boo xamee ni daanaka ñi nga xamee ni ñoom ñooy def analyse

mu doon institution bu sérieuse bu ko basé ci méthodologie bu leer kon loolu du caaxaan ñu jàpp tamit ne Sénégal bokk na ci réew yu gën tolérant ci àdduna bi tolérance boobu moo tax ku mel ni Léopold Sédar Senghor nekk pendant vingt cinq comme ni ko ñëpp xamee président wu mi tëdd nguuram départ fii euh, kon war nañoo gën a dëggal modèle boobu maanaam assumé ko wane ni lii mooy li nga xamee nii mooy modèlu Sénégal ñu bañ koo boole ak toppandoo benn dëkk surtout nag dëkk yoo xamee ni non seulement dañ ñoo sori ci cosaan sori ñu ci géographie ba pare dañ ñoo nootoon moo tax lii nga xamee ni moom la ñuy dunde tey ñu koy dunde asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh maymunata maymunatul mbakiyu maymunata maymunatu mbakiya ubbil lu manga fiini barka may